aleykum wa rahmatullah wa barakatuh fataahu wahabu yarsaku ya may kii rifta wahabliya wasaqni kun ara dayqi atil ajilan bil wishmi amaradin hatta tum ilina kana yin yasir ju'ain tuwa wa hmini wa qini adal ura wa tilbil lisa maskana kasama wal adi wa habu bi amsakin irub مشكورا اجيب وسلم سبحان حسن علي محمد وتوفيق الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñi ngi siyaare ñëpp rawatina teena suñ boobu sàkku ne daa bëgg ñu waxtaanal ko ko ci sëñ Mbakke Madina waaw moom kon kon Modou am na ko ko sàkk ko loolu xam naa xam naa ne rek bëgg ñu ba bëgg ñu waxtaanee rek nee na lañ am la leen ko may kéem tolluwaay kattan lañ ci xam waaw loolu lu am solo la sëñ Mbakke ci Madina waxtaanee war nañ ko yaakaar naa ci ci waxtaan wax melokaanam wa nga xamante ne aarif billahi la taala aarif billahi taala bu ñu waxtaanee melokaanam wa dana leer la ko la ko seen si daam waxoon si daam si daam Abdourahmane loolu la mu ko waxoon ca ba mu ba mu ba mu ba mu jiileeg seex wuy tëggu man ba mu jógee njaareem noonu ma ko suñu seex te suñu mbokk Madina Moussa ne woon ko demal ci sa maam su suñ daam mu ñaal la ba mu demee jiit léeg ab seex buy tëggu sëñ bi suñ daam tàng jër di di di di bàgg parce que mu ne ko sëriñ xanaa xanaa àndoog tëgg moomu mu ne ko déedéet boo dee ab seex bu buy tëggu la mu ne ko waaw yow de soo doon am ngooñ maay sam saarit saarit moom mooy yax yu yu woowee ca ngooñ ma. xam ne façon du ko mën a jëfandikoo ne ko tey sa samaam day seetaloon na na ma ne ma murid saadex nga loo loola kon moom xam ne sa sa sëñ daam moom mooy ku muy sam saarit ko kon yow kaamil nga kaamil nga maanaam nag sëñ Mbakke Madina moomu xam ne wariyaan la wariyaan ku ko sàmm la woon. sama baay moom ci xamoon na ko ndax sëñ manaar moom la sëñ Mbakke Madina sàkk woon ci sëñ manaar moo jox ko sama baay xam ne sama baay nee na lu ma saa nekk cagara wala booba nee na booba buñ ma saa nekk wax ne boobu ñu ñooy bokk benn néeg ndax ndax soxna aminte loo nday sëñ Mbakke Madina na waa ji lay si sama am tudd lay si sëñ Mbakke Madina mu demoon ci sëñ Manaar laaj ko sama baay xam naa ngir ci wetu liggéey rek xam naa am liggéey mu ne mu ne soxna soxna Aminata Lo wax ne sëñ Mbakke Madina na ngeen di bokk benn néeg di bokk benn lubalal sama baay nee na ba mu bi ko sëñ Manaar liggéey ne ah kooku tër bi de kon dara neex waaye kon kon. bokk ñu lal ba waaye ñoroon bokk benum nekk sama bàyyi nee na bu nee na bu ñu tëddee bu sëñ bi bi taalee lamp bi teg ko ci montre bi muy muy ñetti waxtu mu jóg ba lëgati ba lëgati nga xamante ne te ne man mi seetlu woon naa sëñ sëriñ bi min wi une heure lay fatu une heure ci une heure ndax da bu tubaab seen séeré mu jóg ba la ba la dëggati nga xamante ne sama baay nee na dara wax naa it du guddi guddi ku ñëw borom borom yitte ku ñëw agsi rawatina nag ko ndox suuf laal wala xeet yu mel noonu wala kilifa goo xam ne daa am jafe-jafe ci yaramam bëgg ñu ñaal ko booba sama sama bàyyi nee na daañu toog ba xaju guddi kilifa kilifa yëglu ñu ubbil ko suñ suñu ba daal di laaju kaas ñu def ca ndox mu wax ay baat fi jox su ëllëgee sëñ bay yónnee di sant waaw loola kon kon nga xam ne waaye nag sëñ ba boobu laaj laajam bi lan moo ko ko may Cheikh Moustapha day na tër bi woon sëñ Mor Ndiaye Bourding sëñ Mor Ndiaye Bourding dégg naa ci moom sëñ Mor Ndiaye Bourding murid saalix la woon Cheikh Moustapha ko ko bindaloon ci okkayit seetal ko ne ko Mor Mor Sara nga sëñ Mor Jaay Burdi moomu nee na nee na léegi li ko li ko booleeg sëñ Mbàkke Madina ginnaaw sëñ bi Cheikh Sow da ko gis ci kër gi mu nekk di ak kees goo xam ne da doon topp putoo di ko bale. kon Cheikh Sow xool ko fa ab diir woo ko ne ko ne ko ah yow xanaa xëy yëgoo ne ne ku ku ku baax ki dem ñibbi na Tuuba nee na nee na itteem jooju jëm am na xanaa Cheikh Sow daal di koy jël daf ko ci boppam. bi bi bis nag Cheikh Moustapha nag jël sa sëriñ sa sëriñ Mbàkke Madina ak keneen da daal leen di daal leen di duggal ci ak keer sëñ Mor Jaay bu di ngay nettali daal di ne kat daal di dina sëñ Mor Njaay maanaam kat ci kees gi lépp loo xamante ne dugaluma ko ci sama loxo mu fi dugg aw ñeem ak am ndox daal di fay tëj ci Mbàkke Madina moom ak keneen ay bis. bopp nañ ko tëddali tëjee ci ci ay bis sëñ Mor Ndiaye buddig nee na kenn ci ci ci ñoom moom daana yéeg ca seng ya di dem ci kër jigéen ña di wuti lu mos moom waaye s sëñ Mbàkke Madina daw ko ko def ndax la ko wax bàyyi si Cheikh Mbay tedd nee na sëñ Mbàkke Madina sëñ bi tey na tere woon kër jigéen ña nee na su ko way juróom wu tedd wa soxna Aminte la masaa woo ba koy jox dara day bañ ñaan nag bàyyi sëñ Mor Njaay buddi ne bàyyi bi bis nga jeexee sa sa sa Cheikh Moustapha ne ko de daa am lu ma doon seet gis naa ko looloo tax nag sëñ Mor Njaay buddi daal di ba mu gisee wutul Cheikh Moustapha mu daal di dem ci sëñ Mbàkke Madina kon kon loolu kon mel mel na ne ne kon taxasuf mel na ne kon dund suuf yaa ngi gu gu métti la. xam naa ne ndax na ko suñu mën jaay bu di nga waxee kon ay bés di kon daa mel ne kon ñoom ba daana néew daa mel ne sax day do do doxee na ci néew gu ñoom wax ndax man mii de day ci ca bayti bayti ne digg ba ci dem naa fa sama bàyyi bokk ak suñu mbokk ma dina aw ñam ba noppi daal di génne bool ba sama bàyyi gi génne ko. xam ne ne ne ne maa fi xanaa de wala dama daal ak dama daal mooy li li ñu toog jëfëriñ ñeex toog ceebu ñeex bu ñu toog jëfëriñ daal di ne ma fii la sëñ bi doon teg loxoom noonu la ma ko waxee ba ma xoolee ceebu ci ceebu ñeex boo boo xoolee xam naa ne na na mu ko doon kobase na mu ko doon faxase kon. boo boo xoolee néexutal xanaa xam ne ne am na ku ko ku doon daal fii xam naa nga xam ne kon loola kon loola sax ñàkk a ñàkk a ñàkk a wala néew néew ñoom nga taxoon na sama baay Madina xamoon naa ko bu lu yàgg aada woon na di di añ takkusaan bu takkusaan jotee mu laaj sëñ bi ndax ba xam ndax ndax mos na dara. bu bu dee mu mu musul dara mu mu mu dem jël ci ndabam andil ko su su su soree nag nee naa ko mus na dara mu ànd ak mag ña ñëw ñëw jëfandikoo sama baay nee na sëñ bi ci mujj gi sama baay ci nee na sëñ bi mas na koo wax ne ko ne ko xanaa xamoo ne yëg naa ne yow rek day yaay seet ba xam mos naa dara musuma ko. loolu loolu loolu loolu loolu lu kon nga xam ne kon ni néew ñam yi foofu sax danaa fi dugal loolu am solo ku ko mel ne sëñ sëñ sëñ Abdourahmaanum Daarul Moxti soxla woon na ku mel ne sama baay boobu waaw ko soxla la la woon na ko koo xam ne koo xam ne dana ko toppatoo ca wàll nga mëniwut ndax ndax ku mel ne sëñ sëñ Abdourahmaan njariñ la la mu am ci ma ma man naa nekk man fii ci Touba mu nekk Darou Moti ma yëg ne sëñ Abdourahmane na nga ca ca ca Darou Moti mu mu muy tiri man noonu sëñ Abibu daa wax naan buñ ne sa buñ ne sa sëñ Saliou ngi ci ci Touba rek day doy na ma waaw ku mel noonu nag dañ dañ ko war a saytu xam ne ko ne kon ay doomam yi nga xam ne ñoom ñu ñoo sës ci moom ñoo ñoo ñaa ko waroon tribué ñoo ko waroon toggal. togg ga rek mooy la soxna muslimatu moom suñ tubaab waxoon soxna muslim sëñ Basiru moom joxoon sa sa manaar keroog mu ko indee yóbbu ko ci ci ci waañ wa daal di daal dina ko kaay moo moom kaay moo wan la nu ñu toggalee mag daal di jël ndawal ga dëbb ba mu mokk tum tum naa jël ndawal ga dugal ci ci tin la baxal ba mu ñor mu mu mu sotti ko ca toq sax dëbb ba mokk mu del delawaat ko ko ca ndox moom ndox moomee nga xam ne moom la ko doon toggee daal ni ko nii la ñuy toggale mag ku mel ne si Sëriñ Abdourahmane bu amoon doomam joo xam ne day futtiku di ko toggale noone aw ñam dana dana dana dana baax lool li li li may wax nag xam naa ci dara ndax ndax bokk naa ak moom tëkkusaan suuf moom si Sëriñ Abdourahmane añ boo xam ne xam naa ba ca bëccëg lañ ko doon ca bëccëg ma nga sedd guy yi ba noppi dëgg këng nga nga xam ne neexul dara dara moom yaakaar naa du loola nag bu amoon doom joo xam ne moo moo koy tërbiyewu ngir ne Sëriñ Abdourahmane ak nekkam fi njariñam la moom du doom joojee njariñul mbooloo mi léegi loolu loolu loom solo la loolu rek dama ko doon dama ko doon jàmbaas ci sëñ Mbacke Madina rek nga xam ne doxee ni mag ña nga xam ne sëñ Mbacke Madina loolu sa sama baay moom mu amoon xam ne ni suba teel gi yoor yoor bi sama baay moo ko daa moo ko daa toggal lax ba faraw faraw loola bi set soxna nay mu mi rek am na fi am na fi am na fi bis boo xam ne dañ la sëriñ bi de xam naa day teel a la xëy maanaam naa bu subaa day teel a xëy soxna yi mu nag xam naa façon wuta togg laax ba ndax yaakaar ne du fi xaj ndax yor yor lañ ko daa bu tàng lañ ko daa togg ñu ñu xëy ba yor soxna yi mu dem ci kër ga foo dégg yéen suñu mag bi mu jàll mu jàll fa nuyu ko suñu suñu suñu wàkk ma di ko tooñ naa ko ah kii ba de moom moom laa doon xaar nga xam ne nga xam ne kon loola loola kon lu am solo la waaw koo xamante ne dana la dana dana la la la mën a yittewoo kon sëñ ba ci ci ci Madina nag doxin wa nag Cheikh Moustapha nag da leen a toppatoo woon moog suñu Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ñooñee da leen a toppatoo woon nag jox leen ay bagage ay bagage tur yàlla yi nag da da leen ko daa jox sama baay nee na sëñ Mbacké Madina nee na ko Cheikh Moustapha bis ma mas leen leen na rëdd fi suuf ab xaatim def ca dugub bi suuna jël sarla gi sotti ca dugub bi suuna ja ne ne sofeet ba focc Cheikh Moustapha daal di di far xatim ba daal di leen loolu loolu kat amu solo nga xam ne ne ne kon kon kat Cheikh Moustapha kon mi ngi leen di waxal ko xamal ne ko kon ko kon kat am na lu am waaye am na leneen lu gën a wér loola am tur yooyee daana leen ko jox nga xamante ne te ne kon waajal nañ leen ci ay tur yàlla. loolu yi nag bo bokkoon ci doxeenu mag ñi xam ne maanaam murit gi léegi da ko fàtte maanaam murit murit murit gi léegi fàtte na tur yàlla waaw te te noonu ko si sëñ sëñ madame Diop waxee ne sëñ Tuubaa mi ngi daa yare jàng alxuraan si sikkar tur yàlla jàng xasiida ak liggéey bu metti al istihdaamul kasiir noonu la ko waxee ca Irwa ñeenti ñeenti ponk yooyu moom la sëñ sëñ waaye daa yore sëñ bi la bi ñu xam nañ dara ndax moom moom moo doon secrétaire particulier sëñ bi njëriñam jolof la ko tàmbalee ba një ba njëriñam loolu loolu loolu loolu kon sëñ Mbacké Madina it kaamilu lu alxuraan bi suba ngoon la ko daa jàng suba teel man daanaa ko suba teel gis naa ko ko mu nekk di ko ko ko jàng suba teel. xam ne seeti rek doon wala yooyu suba teel fekk naa ko fa mu yor kamil bi njëriñ Madina suba ngoon ji nag benn sërifu naar to toog to toog naa moom sërif seer Fall la àndaloon jóge Tic Mantine ñëw fa ñëw fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi ma ma dalal leen sërif seer Fall day sama soppe ngir yàlla yàlla ko soppaloo mu sopp ma rek ngir ay mbir maanaam maanaam tey sërif ba ba wax ne si mu soxla woon nee na ko moom si si si Abdourahmane loolu daanu waan nee na ne ko laaj naa si suñ mbokk ma ne ko lu tax ngay wàcc kaayir bi ñaar yoon mu ne ko bañ jógee njaareem si suñ tubaab waxoon ne na ngeen jàng alxuraan ba na ngeen jàng alxuraan ba saf sàpp ci seen jàpp yaram yi ndax lu ma am ci laa ko amee ci ci ci ci ndax ci lu ma am ci laa ko ko amee ba dikkee si seen suwaan leen kon na ngeen sasoo di di wàcc kaayir bi bés bu set benn yoon. neen tun naa wax ji neen fasoo di wàcc kamil bi benn yoon bi bukku ja ba mu am ba mu amee loola sëñ Mbacke Madina ne sëñ sëñ Soxla ne ne sëñ Mbacke Madina ne ko ma xam na ne sëñ Seex amul jot ga ba fasoo man su su ma xëyee wàcc wàcc sama sama bopp su ko ne wàccal ko xam nga xam ne loola kat bu yor-yor bi nag jukki ci ci xasida ba yor-yor bi la ko ko daa jàng gis naa ko Madina Madina jukki xasida bi bu xëyee suba teel. jàng kamil alxuraan bi wàcc ko bu yor yoree mu yor ab jëkk bi ci xasidaam su takku saanee nag mu jàngal sa sa sëñ Cheikh bu som loola loola loola loola xamoon naa ko jox maanaam maanaam maanaam nag sell lool rek sell lool sell lool rek ku xam sa sëñ sa sëñ Bamba Mbacke Madina sëñ Abdourahmane Darou Mouti boo boo ko gisee melo waangoog melo waangoog waaw nga xam ne kon lu ko kekkee di rawee kon xam naa day ak jëgle ak ak démb ja waaw waaye kooku kon si si si Abdourahmane boo ko ne jàkk rek mooy mel mooy melaw si si ba ki Madina ba maanaam maanaam maanaam kuy joxe ba jeexal takk la it ku ku ku kuy joxe ba jeexal takk la su ma su su suturaal ko saa bu bu soxlaal loolu teew waaw maanaam maanaam it bokkam yëpp ku ku yaakaaroon. waaw ndax am na sax doomu si sëñ Bamba joo xam ne doomam mbiri dina ba njàq ca lool daa daa neen nañ ko yóbbu ca sëriñ lu ci ci wax rek xam ne te te ne sëñ Saliou daana defee leesu xadara Madina waaw loolu moom moom dañ ma ko connecté sa sa sama baay ma ma connecté lii sa sa Sëriñ Xaadir moom daa fa ñëw am fa ñetti fan moom ñetti fan Madina waaw si si si moom daana fa yendu si. ci la mu fekk si biir moom fekkee naa ko ay yoon moom mu ñëw fa sa sa sañ soxna bu mii Touba gi su su ma saa jógee ca armeel yi guddi daana fa ñëw gane si ko xam ne moom su gane si si si ba dina guddi la koy gane si amoon na wàcc ci ci ci waay booba ñëpp rek ñëpp ko fonkoon moom daanaka ndax meloo sa sa sa baay nee na day léeg-léeg da tax ñooñu fonkoon ko ko ko loolee nee na dina joxoon cër boo xam ne sax foofu ñu ñu ko woon. ndax moo leen ji jiitu ci ci ci ca yar ba dafa jox leen ciirub sëñ Tuubaa ba la la may tëjee rek Sëblaa Jaxate nee na su su Mbacke Madina bi ko sëñ Tuubaa bi bi ko Sëblaa ci mujj gi bi bi mu joxe addiya doomi sëñ Bamba yi te boole ko ca si si si Sëblaa Jaxate laaj ko ne ko lu tax nga nga ciy boole sëriñ mi mu ne ko sëriñ mi kat damaa sëñ bi waa këram yëpp dañoo tase fa moom ma gis sëriñ ca biir. mbooloo ma ma laaj ko ne ko ne ko sëriñ mi ne da da da caa bokk mu ne ma ci yéen la bokk salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu